waaw avant tout damay nuyu samay supporters encore xam nga di bëggee ñëpp di kontaan vraiment si génn bi ñu génn nii. xam nga di jégaluwaat bu baax a baax nag si dérangement bi waa koñ bi may jégalu bu wér a wér a wér xam nga waaw di leen masawu di leen baaluwaat ak xam ne ne làmb moo demee nii daa bëri coow. xam nga vraiment di kontaan si mobilisation bi gis naa ni dëkk bi génn nañ waaw ñun ñëpp benn lañ xam nga moo tax ñun fu ñu mënti dem rek Tivaouane wan la ñuy représenté drapeau Tivaouane Peulh la ñuy représenté xam nga. incha allah samedi na ñëpp génn xam nga ñu mobiliser wu dem stade combat spécial la ñu bëri du combat bu ndaw te xam suñu saaf samedi la 14 bu arbitre ne bu ñu nee di samedi la 14 mars 2020 arène nationale suñu saaf loo indi jour booba jour may indi dem mooy dal ak teey parce que daa am si lu jugee te bëgguñu see delluwaat te tamit. maanaam Tivaouane Peulh daf ñoo yónni yàqamte ñu chaque jour li ñu wax instant nii Tivaouane Peulh dañoo soxla ndam dañoo soxla victoire loolu moo ngi sama bopp maa ngi ko téye ñun ay espoiru dëkk bi lañ yaakaaru dëkk bi lañ bokk moo tax amaana nii dañoo jóge si ay tolof tolof mais njuumte la parce que ndaw bu nekkee ndaw gëm boppam xam kan waaw ah, ok xam nga yaa ma gën a xam dañoo nekkoon ndaw xam nga topp suñu xel ak suñu doole yaa ma gën a xam moo tax ñu juum mais lamb moo demee noonu olof Ndiaye lamb la wax des fois da ngay lamb nga daj des fois daj yàlla nañu yàlla musal ci bañ a daj. Sigi bii mooy sa ñaari combat. bii mooy sama mooy sama sixième combat waaw maam maanaam am naa trois quatre victoire benn défaite. waaw Sigi est-ce que xam nga ki ngay bëree capitaine. capitaine non xaw ma ko noonu nag mais am na lu ma jot a xam si moom si diggante bi. si lu mel nan. waaw mooy maanaam di ko suivre di topp ay combat bi mu jot a bëre affaire yooyu ak ay am di jàmmam ñi nga xam ne dañ fa dëkkoon tuxu si fii di ma wax suñu ay qualité loolu mais est-ce que xam nga ni capitaine booy bu mën a xeex la. waaw man loolu man xam nga ndeysaan làmb maanaam làmb du mën a xeex a ko yor làmb xeexu bedd la du question de ay kii man ba ma daree nekk sukki saax ba tey mosuñu maa duma si làmb maanaam bu ñu nee kii xeexkat la jour boobu sax laay gën a bëgg parce que damaa xam ne ni dama koy daan ci lu yomb. si li nga jóge ak say say copain mbër ngeen bokkandoo dëkk bi ak ak ni ñu génnee ni ñu baaxul ak noo koy bëree waale waaw avant tout rek damay masaw coono gars yi ñu fi jot a génn ñëpp su ma limee damay juum du ma tudd tur waaye ñu fi jot a génn yëpp nañ xam ne ni dañoo doon génn di am ndam te ba am ndam doomu jàmbur lañ doon daan muy jooy di ñibbi kon tey bu ñu leen daanee nañ sant yàlla te xam ne ni noonu la mooy comme ni ma ko waxee sànq rek maanaam olof Ndiaye lamb la wax des fois da ngay lamb ga daj des fois doo lamb maa leen di xam nga encouragé di leen wax ne lamb noonu la nañ gën a góorgóorlu waaw yoonu ndaw du gaaw noonu la yàlla yàlla gën a defar affaire yi ay victoire victoire ñëw man moom Inshallah, yalla yàlla yalla musul ci parce que tous, soxla fi. mais ñu ngi suki saf mu tous tous mu neex mu indi état bu doy war suki manam bi nga gis fi fété la sa yaram. la sama yaram ak ak di ni am lu reuy lu may xaar moy jour là dañ wara a yoon parce que sas la li rek motivation quoi motax nit ki. xam nga am na yoo xam ne boo koy def bu jàpp ni yow kese la parce que lii ku ko xool xam ne ni maanaam nit ñi am na fuñ la teg quoi cër te li may faral di wax tubaab danaan la respect réciproque kon loolu dañ siy bàyyi xel bu baax di ko doxaale di ko waxaale. ban mobilisation ngay waaj. waaw comme d'habitude rek ndax Tivaouane Peulh moom yaakaar naa gis naa ne saa yu sukki saaf jugee dañuy jug loolu du sama ndam du sama dara amaana na mayum yàlla di leen wax ni ni rek jours yi nañ mobiliser si kattanu yàlla nañ si yokk benn rek te xam ne ni incha allah mbégte lay doon ci kàttanu yàlla. autorité yi ñu ngi siy jàpp. waaw autorité yi am na ñu si jàpp de am na ñu si jàpp am na ñu si jàppagul xam nga gars yi am na si ñoo xam ne boo demee dañ lay yóbbu deuxième édition yaa ma gën a xam waaye maak leen di déglu waaw su ma jógee foofu nag man am na ñoo xam ne ni moom maanaam dañ may dañ may choqué à tout moment parce que ndeysaan ba may débuté ma ak ñoom ba nii may toll nii barki Seydina Mouhamed chaque combat dañ si jàpp billaay wallaay te damay xool ni chaque bu gënee dem dañuy gën a yokk seen loxo

ah waaw xam nga nit moom maanaam dara boo ko gëmee nekk si maanaam au sommet ngay sédd sa bopp waaw roi des arènes yaa ma gën a xam roi des arènes laay séddu sama bopp waaw te gëm-gëm la yaa ma gën a xam xam nga vraiment tamit xam nga di kontaan si Bas borom Dental TV parce que moom tamit ndeysaan fan yu jot mayu ko ko mais ñoo ngi déggante wax dëgg yàlla ak loo xam nga aw ma seen fay ñooñu ñëpp vraiment ñoo ngi jàpp si kii bi Pa tamit aw ma fayam ndeysaan borom baax oyof bay bëgg a dee borom xam nga yow moom sama deret nga yàgg Demba maa ngi yéen bët yaa ma gën a am police de su gisaa fi lamb ji soo ko daanee fan la la mën a yóbbu. waaw lamb ji su ma ko daanee xam naa fu may yóbbu parce que ki may bëreel moo ma mag si lamb moo ma jiitu si lamb xam nga moo tax bu ñu ñëwee dañ koy jox cër bi moom. waaye du tee ni tamit lu ñu ko war a def dañ ko koy def ragaluñ loolu sax ah, incha allah dañuy yox jëli ko si kàttanu loo koy wax. capitaine ah. Ah, li ma koy wax de bariwul. mooy jours yi moom li ma koy wax mooy na teey ànd ak dal bu dul loolu bu teeyul moom yaa ma gën a xam ñun dañuy def ni ñu daan def rek dox si koom du ma ko daan si kàttanu yàlla. xeex wala da nga ñëw bëri loolu moom incha allah moom bis ba lu mu laaj rek la ñuy def. Ah. waaw incha allah. yaa ngi ñëw wala mooy ñëw. man moom du ma mës a dellu moom wax dëgg yàlla lamb moom mës waaw du ma mës a dellu ginnaaw. mais Souguy Tivaouane Peulh nekk sa ginnaaw de. xam naa loolu Tivaouane Peulh nekk sama ginnaaw moo tax dama koy teg si yoon xam nga di sant sama benn waay bu jógee Malika muy óol sama boxeur bi depuis lamb ji ba mu commencé ba tey barki Serigne Touba maa moom ñoo ko nekk billaahi wallaahi muy óol Malika la dëkk mu ngi taxaw